waaw waaw nee naa leen bu wax ji bëree ñoom la waaye bu jëf ji bëree jotaat sa kàttan la ayca moo ngi noonu nee naa leen jotaat sa kàttan di garab bu ñu defee si suñuy reen jotaat sa kàttan di garab bu naturel te efficace yow mi nga xam ne da am néew kàttan demal jëfandikoo garab gi di nga jotaat sa kàttan yow mi nga xamante ni da ngay gaaw a daanu bëgg jot sa kàttan jotaat sa kàttan moo ci gaaw jëlal garab gi nga jëfandikoo ko di nga gis résultat yu leer jotaat sa kàttan kër gi mën a neex lool ba jéggi dayoo yow mi nga xamante ni jigéen nga amoo li nga xam xamanteni moy banex ci negu sey jotat sa gàttal mo ci gaaw jëlal garbi nga jëfëndiko ko bu ko défé fofu mëna a neex waaye yow mi nga xamanteni da nga amé hémorroïde mo xam externe wala interne jotat sa gàttal mo ci gaaw waye képp ko xamanteni ni bëgg ngaa ak waji adresse mour école 3 numéro yaangi non ci suuf jotat sa gàttal moy neexal kër gi kër gi mëna naat mais bu féké modlo dafa baye couronne bi tay ni yow ban solution ngay tek pour pour pour roi des arènes bi Modou Lo bu bàyyee Modou Lo bu bàyyee couronne bi ci kan la ko jëlee woon. Modou Lo Eumeu Sène. ko delloo. that's it. ah coach loolu du solution de. lu tax. non Eumeu Sène fi daanu waat fi. ma kon bu ma wax ne ma Modou Lo bu bàyyee couronne bi bu demee couronne bu bàyyee couronne bi bu bi moom non attends. kon du wax. moom la expliqué waat rek dama la tey bu fekkee ne da ngaa bëre gañu couronne ak kenn ne da ngay bàyyi couronne bi contender bi mooy ka nga mujjee bëreel gañe ci moom couronne sport bu dee sport la ñuy wax lool la. xaw ma nag yéen seen làmb du ngeen koy defee seen problème du sama problème. balaa ñu ko jox Eumeu Sène ñu jox ko Tapha mi ko mujjee daan kon. loolu sa donc coach li nga wax ñu bëri duñ ko d' pur loolu dakor, de. waxuma pour nit ñi d' accord man yow yow dafa mel dafa am loo comprendre man su may ya, wax man lijjantiwu ma nit ñi luñ d' accord luñ d'accord accordul man damay wax li ma gëm ak li ma bëgg carrément. di ko gars yi seen commentaire yi des fois wala seen lu ko seetlu lijjantiwu ma leen d' accord xaw yow mi xam xam ya, nañ la yaa ngi ci suuf benn problème dag ma déglu la force munoo ci dara wala nga tëj. xam nga moom laay waxaat waaye di weesuwut lii yow nit ki nga naan xamoo la am yëpp yaa ngi toog di ko ba léer moo <laughs> bu bëri wax bi yëpp da nga ma déglu par la force de mënoo ci dara neex na xarit da may déglu par la force da nga nekk ci suuf may wax li ma li ma li bëgg a wax nga koy dégg par la force yii di la neex yii di la naqari mënul ñàkk pourtant li mu wax neexu dégg mais mooy logique non non ça mais dama la sport bu dee sport la ñuy wax contender bu fekkee ne kii dafa dem jël kii ne day bàyyi dañ koy delloo kële loolu euh, dal na nu ñu ko waxatee John Jones ak euh, euh, gaan be nu mu tuddati waay DC Daniel Cormier su waay loolu sport la ñuy wax mais bu moo tax ma la bu dee seen làmb ji yéen a xam fu ngeen dem fu ngeen jëm yóbbu leen waaw yéen ñi am làmb yéen ñi xam làmb yëpp yéen a ngi gañee ci làmb yéen a ngi ci am xaalis yéen a ngi ci def dépense mais coach. Hmm. Euh, est-ce que organiser woon tournoi boole ga yi ñu mbëkkante lu meilleur bi ñu jox ko roi bi loolu gënul logique. yooyu lu du sama problème maa ngi la koy waxaat. loolu promoteur moo koy togg te nag tournoi boo organiser organisé xam nga ñaata million nga ciy def ndax promoteur bi am xaaj xaalis boobu. non su boobaa ñoom dañuy wàññi seen kase pour titre bi. sama yoon newu ci daal. yoy yep promoteur yi ñom ñoy fay mbeuri ñoy gérer mbeuri man dama lay wax ci sport te yeen ginaaw yeen sport mom à part dem dinier dem salle de musculation ba daw yi ñew paré ngeen ci pour yeen bu ngeen duggé ci lamb rek lepp lamb la te làmb boo ko déggee mooy bàkku affaire culturelle bi bu ko weesoo gero keroomeen ngeen di def wala simple ak dóorante loolu sport la mais yoo xam ni ay dof lañ ay kex lañ dañooy sisu sisu lañu def era ya yaa xamoo lamb yow xamoo làmb boo xam ne toogoo benn plateau tojoo fenn naan xamoo làmb toj naan xamoo làmb te di ma déglu <laughs> yaa ngi may déglu toute la nuit jég jég dem sama vidéo yi YouTube non kat waaye yow nangam yow man de looy mer kon bul déglu bul saaga looy déglu mais coach li gënoon li gënoon sax xanaa ñu jox ko euh, ñu bàyyi ko parcelle. jox ko fi ñu jox ko ko bàyyi ko fii. parcelle joko ko benn mbëru parcelle. <laughs> aw la moom neex ci yéen seen ràcc bu ngeen di ràcc seen ràcc dafa neex ràcc gi bii bii bii séddlu bukki bii bi booyi bukki ah bi copain wu bukki bi maam yi bi ndey yi bukki ah, seen séddale neex na de <laughs> Cheikh yow yow daa neex maanaam ñu ne yow mën nga bëgg waxloo man doo waxloo man dama la koy waxaat léegi dama ne ki nga xam ne ni moom nga jëlee ci séddale bi booy bàyyi te kenn jëlul man moom lañ jëlaat jox ko contender kon dañuy jël Eumeu seen war ko boole keneen ñu xeex ñoom ñaar ci seen biir ku daan yaa moom. mais Eumeu Sène mujjul bëreeg Modou Lo loolay problème bi. loolu question wu kan la mujjee bëreel de du loolu de ci kan la ko jëlee woon. ñee dañ ko bëggoon a jël perte ay ci sport maa lay wax de bu dee xam nga luy sport yow damaa yaakaar nag boo yoo xamoo sport yow yow ay football bu ay football bopp koñ nga xam ay seetaan yi ay nawetaan ak yooyu xamoo sport. mais coach seen règlement MMA yooyu amul fii de. du question wu règlement MMA du règlement wu MMA c'est quoi règlement bi c'est la même chose nga may wax règlement wu MMA. loi des sports noonu la demee contender dafa am. day mel jouer carte rek ngeen doon ñeent. doon ñeent gi ngeen doon ñeent nii bu ngeen gañee pour bulut bu ngeen gañee ñan ñooy njëkk a commencé ñi gañee ñooy commencé right ñi gañee nag bu ñu jógee dem yeneen ñaar bu ñu ñëwee toog ñaar ñañ fa fekk ñooy commencé naan loolu kay lu waawee sport la moom mooy moom la ñu le fair play problème xanaa yow. waaye bu fekkee Eumeu Sène bàyyi. Hmm? bu fekkee continué bàyyi nag. bu fekkee Eumeu Sène baay ah. waaw. fekkee ne Eumeu Sène bàyyi xam na ne Eumeu Sène bàyyi na léegi kon Eumeu Sène bu bàyyee kon Modou dafa nar a toog ba kañ fii ak cinq ans Eumeu Sène moom fii ak cinq ans lay bàyyi ndax li li Bombardier ñam dana ko ñam kon xanaa doon na ma saa waaye a toog cinq ans du bëre exemple ah genre bu fekkee dama jox exemple bu fekkee contender bi ki nga ko war a jox bàyyi na mhm. kon nooy def avant avant bi kan la ah. avant bi kan la woon. avant Eumeu Sène. Bombardier. Bombardier avant bi kan la woon bu Balla bàyyee avant bi kan la woon boobaa ñu soog a am làmb la ñoom ñëpp dañandoo dem léegi buñ dañandoo dem léegi ci booy groupe bu ndaw bi la ñu xoo kan moo ciy doon roi des arènes boobu nag dana yomb tëgg tournoi mais nii nii nii moom tournoi moom ah Modou Lo de. Ah, Modou Lo de. waaye Modou Lo de bàyyi su Modou Lo day nelawal gars yi rek ay bàyyi naag yëpp déggoon nañ ko fi ay ibaadoog yëpp mu ñëw mu ñëwaat fu gars yi bàq mu moo ne moo dàq bàq ñëpp Lo fàttewul benn pas de dàq lépp la mën lu muy def nii. fàttewul karag bu Fullo moom moo la gën a xam ne jamono jii nii diin ak diin ak jamono ñoo ci la ñuy dund mënul ñàkk. saf ci diine yombul ah. bàyyi la gën a jege de. diine yombul ah. bàyyi gën a jege de. mais kenn du wax ne la Modou Lo testé na ko fi vingt ans yow it nag c'est que bàyyi la gën a jege loolu du wax. day naxe de. non ma ay saay la day donc dañ wante dëgg boy boy taxaw mo len manke rek ay ñom franc parcel yi ni taxaw mo len manke ay ñom réparer deux réparer deux taxaw moko manke euh te man sama côté du yom lu tax sama côté du yom parce que mënu ma doon ben nit bu bëgg taxaw ñëpp mënu nekk ñi

caatu yoof caatu nu ñu sax wës jàmbaar euh, bul désert daam seen mujja ak kan zambala mun naa génn mais zambala tamit moom it foofu muy naan xorom xaw a saf tuuti safut Pape Lo non Petit Lo sax moom jarul sax ma koy cité parce que Petit Lo moom ci jëm xam na ndaa li mu a Pokola Balde xam na boppam ah këlëma lële këlëma lële ah booy booy euh, nu ñu koy waxatee sax booy kii waay sama waay waay booy bi waay bërëw de bi bërë booy bi naam bërëw de bi giro giro giro ah beneen booy bi nu mu tudduti booy parcelle bi am na beneen booy bi ànd ak giro te ñang gaay waalo anaconda tamit anaconda bàyyi leen ko xel booy boobu euh, booy Dakar booy du Jóob de booy ndigal ma toj sa lu bon dama <laughs> ndigal ah booy booy booyu bi booy lansaar bi nu mu tudd tam daanu woon contre ngiro abu njaafee booy yooyu da nga xam ne booy yooyu noonu ay ndaa mën nañoo doon ay ndaanaan booy xeeru ngor xeeru ngor day dóore de. non boy xeeru ngor bàyyi ci xel. tafa am mbër. dafa am mbër. dafa am mbër dafa am lu ndaw rek incha allah mais surtout dafa am mbër ak kanaat sax xaaral am na booy yoo xam ne wala ñu fàttali booy am na benn booy caatu njóor moom booy moom ni mu tëgg tama tamaaki boor. déedéet kan ah caatu njóor day weeree. waaw rek. non du question defete ñëw caatu ngiwal façon d'entraînement bi ñu ko entraîné loolu dafa dem ba mujj gi xañ ko lu bëri da ngay tooy da ngay feebar am na xam ne doo ko mën day metti caatu faal kaw gurde kaw gurde faw mu defaraat bo baax na mais faw mu defar waat am na am na lu ndaw lu ko manqué caat gurde li ko manqué mooy Euh, la focus interne focus interne bi amatu ko amoon na ko début bi man xamul la mooy problème am Kaw Gourdin mais war nañ ko war a mën a xoolaat te nag booy c'est l' avenir ah avenir la mën na metti nii ci côté nii mais avenir lu làmb la. Caatu Yoff. waaw ah, Caatu Yoff moom la moom moom xëy moom laa lim di moom ba ma ko limee de. Caatu Yoff ba ma ko limee du tey hmm. du léegi Caatu Yoff Caatu Yoff tamit. caatu yaraax léegi dafa am leneen lu mu génne Jacob Balde Tony Tony Tony sax des na Tony mën na bëre déedéet mais desul de xam de déglu ma wax la jàmbaar làmb daa am lu muy àndal Tony mën na bëre doon na athlète mais ko day xeex day bëri lépp lay def. waaw mais il est trop poli. avant làmbam di taxaw la da ngay dem mujj gars yi lay fàtte benn instant. fu loolu laa la bëgg tegal. guu bi du benn. Mm. pour promoteur yi tàng ci sa côté tëggal la du benn. xam mm. nga fi may waxee. mais Tony waaye Tony Tony mbër la. Tony gars yi ci kaw mënuñu ko bu ñu dëgg. ah oui. mais dafa am faw mu toj nem bobu adversaire Talfa bi nag. adversaire Talfa bi yusundu yusundu lu dal Tony moko dal daan sax Youssou Ndour sax temps yi na parce que tay mi ngi mi ngi wacc lamb ji di di di yëngal. yusundu Ndour Youssou Ndour tane na yusundu Youssou Talfa Talfa. le combat. <laughs> Liss Ndiago. Liss Ndiago foo mu sérieux. Liss Ndiago Liss Ndiago moo war comprendre ne moom ci ci ci tànk sportif la war a dox. pas ci tànku ah yee non na bàyyee gars yi loolu moomut loolu gis nga ay Liss Ndiago def nii ah ci yi ñu nekk nii barke Serigne Touba boo yooyu noonu bu ñu amee concentration am équipe bu baax am focus booy def seen bopp ne ay sportif lañ ay athlète lañ barke yaa rasulilah pour mbër humilier leen ci biir géew wala daal leen yenn daal di day metti du yomb parce que bañ bañ gi mi ngi ci ñoom ba tey mais juste des fois comme Tapha Mbeur looloo koy dal des fois côté comédie bi da leen ëpp doole. comprendre nga fi may waxee. Ah. des o m i t né dem bu mu jige concentration bi mat doko am quoi day xaw metti hmm bi la wala hmm tu comprends